di jaajëfal rek juste tey sénégalais yi génn tey soutenir Bah Diakhaté tey ci tribunal bi déjà depuis huit heures sa fekk saal bi fees na dell hall bi mu ngi fees dell donc ça veut dire que tey camarades yi jóge fu ne ñëw soutenir Bah Diakhaté pour wane ne rek ne mooy régime bu ñu am en face de nous mooy xokkatal bu ñu bëgg a xokkatal nit ñi loolu san ne passera pas te ko nangu leneen li mooy di wax tey délit bi ça c'est un précédent dangereux mooy premier ministre mu su fee am doole boo xamante ne ku ko tudd ñu jël la tëgg kaso bi boobaa dina bëri ñu koy ñu koy dina bëri ñu dem ci kaso bi ba si commencé ci man mii parce que man faalewu ma Ousmane Sonko ragaluma Ousmane Sonko Ousmane Sonko pour man n'est pas un exemple de type sénégalais tey bu nekkoon ci république bu baax lañ nekk dëkk bu bu baax lañ nekk tey Ousmane Sonko waru fe nekk ministre ba fi nekk premier ministre pour man c'est ça maintenant nag il est temps que les juges le procureur tey nga xamante ne moom Ousmane Sonko saaga woon na ko ndey saaga ko bàyyi procureur juge yi fi nekk tey Ousmane Sonko saaga na leen traité na leen de tous les noms tey ñooñu noonu Ousmane Sonko sant leen pour que ñu def le sale boulot je pense que tey li gën a am solo mooy justice va justice bi dina dina tranché parce que dañ ko bëggoon yóbbu lu ñuy wax euh, euh, tey flagrant délit lañ ko yóbbu parce que amul lenn lu ñu koy toppee loo xamante ne tey jar na instruction pour man ñiy tudd ay Bah Diakhaté ay Wave ak ay Orange Money nekk tey journaliste yi ku ci ubbi woon seen Wave gis ci ay ay ay mm-hmm. loolu mooy mbir mi tey ñoom politiciens yi muy saagakat yi nekk féete côté Pastef bi ku fi ubbi sa wéef ñu fekk ci dara pour man aussi maa ngi wax enquêteur digg nañ def attention ñu bàyyi données yi ñuy jël di ko di ko di ko ko di ko def ci la la presse parce que c'est des données yoo xam ne ça doit rester secret. alors moo xeex bu fi amoon lan ko waral. waaw xeex bu fi amoon tension la dafa am ay tooñkat lañu. Hmm. am un militant bu Pastef ñëw ci biir fekk ci biir ay ay ay nit taxaw depuis suba lekkuñu naanuñu taxaw nga ñëw provoqué leen saaga leen. nit nag boo ko fekkee saako loola ci fekk yaa yaa ko ci yaa ko def sa bopp loolu mooy mbir mi gisoon nañ ko keroog jour dig bi ngeen gisee peut-être ay journalistes yu bëri nekku ci woon on avait gazé on nous avait gazé mais loolu lu ko waral tamit benn waa Pastef moo ñu fa fekk saaga saaga Pape Malick Ndour la même chose se répète aujourd'hui au tribunal mooy ñoom lan lu ñu xam mooy saaga lu ñu xam mooy xaste lu ñu xam mooy wax ju ñaaw loolu mooy mooy topp nañu encore ba tribunal ñëw fekk ñu fii di ñu saaga ñun nag du ñu ne kenn bàyyi nañ rek jàll ku ñu saaga ku ñu xuri ñu ñu gàjj la ku ñu ku ñu joxoñ ñu damm sa baaraam loolu may mbir mi te c'est clair parce que nag fii lañ juddoo fii lañ màggee te ay ragal dëkku fi léegi nag dina ñibbi këram parce que deful dara parce que lii ay mbirum tappale la lii ay mbirum saale la li ñu leen di sant mooy nañu wàññi dund bi lu ñu waxoon lu ñu leen di sant nañu fexe ndaw ñu liggéey li ñu leen di sant mooy nañu fexe paysans yi tey jot seen jiw parce que taw bi commencé na ba léegi jotaguñ seen jiw lu ñu leen di sant mooy tey nit ñi ku nekk tey lu fi Sénégal lu fi Macky Sall def ci kilomètre autoroute ñoom ñu fexe eggali ko BRT bi mu yem na Guédiawaye na fexe dem ba Kër Massar TER bi yem na Diamniadio yem na aéroport Diass na TER bi fexe dem ba Mbour dem ba yooyu yooyu leen fi nañu fexe eggali projet yi ñu fi bàyyi mais nekk fi di tappale di wax ay assises de la justice yoo xam ne euh, tegul fenn indi ay assassins yoo xam ne dañ leen di teg pour ñuy jàkkaarloo ak ay saa pour man du loolu du doxal réew léegi nag bu ñu bëggee jàmm ñun jàmm moo ñu gën a lu ne parce que nag on est des républiques tey on est des républicains te te lu fi nekk yëpp jàpp nañu ñoo ko tabax te dañ ko toj duñ ko yàq mais nag du ñu tere suñu liberté d'expression dinañ ko wax lu ñu xalaat dinañ ko wax te tamit lii terewul lenn loo xamante ne tey dina dina dina dina gën a gëm tey lii day gën a yokk suñu engagement day gën a yokk suñu taxawaay te dina gën a yokk suñu ancrage tey dans l'opposition parce que nag pour rappel à Ousmane ñun ñoo ko ay xale lañ moo ñu mag mais ñoo ko jiitu ci politique parce que nag on a fait quatre ans de l'opposition avec Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade yaakaar naa ne un fin politicien Abdoulaye Wade koo xamante ne tey xam lu mu doon def on on s'est opposé dignement avec Abdoulaye Wade donc c'est pas avec ces amateurs là que un duo qui gouverne qui nous gouverne que dinañu ragal tey opposé ak ñoom te dinañ ko def dans la plus dans les règles de l'art dinañ ko def parce que nag dinañ wax suñu xalaat le reste nag mooy ñu ngi woo tous les camarades républicain yoo xamante ne ñu ngi fi di woo la l'opposition loolu laa bëggoon wax itam taxawaayu parti APR on dirait que yow rek fi nekk où xam ne ay xam nga xam nga tey tey c'est au-delà de l'APR ça c'est le Sénégal aujourd'hui tey taxawaayu man mun naa ne taxawaayu ma taxawaay APR taxawaayu ma tey jege naa ne Amadou Ba taxawaayu ma tey damaa taxawaale ndax doomu banlieue laa yëmbal laa dëkk ñu jàpp doomu pikin ba yëmbal ak Pikine benn lañ loolu laa fi taxawal di sénégalais taxaw fi pour que Bah Diakhaté mën a ñibbi këram ay waajuram nañ ko ay waa këram nañ ko soxla tey Sénégal da ko soxla ndax il donne des informations leneen li mooy xanaa colonel colonel colonel Kébé xanaa nekkul Sénégal xanaa nekkul Sénégal lu ko teree ñëw porte plainte xanaa Ndiaga Seck nekkul Sénégal lu ko teree ñëw porte plainte pour man le dossier la c'est pas Ousmane Seck Sonko kese la ci tuddoon te bokk na am fait se mais pour man jàpp naa man de ku ma jiiñ góor jigéen ku ma jiiñ góor jigéen doo fanaan dinaa la porte plainte man Omar Sow parce que góor dëgg laa donc loolu ñooñu noonu ñu jiiñ ko anañu lu tax porte ñu plainte pour man yaa anguille sous roche et ce débat d'homosexualité là dañ ko war a dañ ko war a régler une bonne fois pour toutes mooy lan fii homosexuel waru fee doxantu góor jigéen waru fee am kër góor jigéen waru fee law parce que nag fii dëkk diine la dëkk maam limaam laay la dëkk Serigne Touba la dëkk Alaaji Malick Si la dëkk jàngo bi la parce que tey aujourd'hui euh, loolu moy Sénégal ñun nag on va rester daano nos dans et on va se battre on va se traiter contre le régime. Ba nee day jóge APR noo gisee na li ma wax mooy li ma wax tey dinaa répondre